ñu di ko ñaan mu may ñu kendalug jàmm waaye duñu deñ di ko ñaan ne ko allahumma anta salaamu wa minka salaamu ilayka yaudu salaam fa xayinna bisalaam wa adxilna aljannata daaraka daar salaam yàlla ñu ngi lay ñaan jàmm yow mi yore jàmm mboolim xeetu jàmmay ci sa nguur lañu nekk ñu ngi lay ñaan yàlla nga ñu jàmmal yàlla nga ñu jàmmal suñu nekkin ak suñu réew yàlla nga ñu dundal ci jàmm yàlla nga ñu may jàmm ba ñuy gunje ci suñu dund waaye keroog bés pénc ñu ngi lay ñaan yàlla nga ñu tàbbil ci kiru jàmm ba nekk fa yow buur bi subhaanahu wa mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yenn ak seeni njaboot yéen a ngi fàttaleku ba léegi ñu ngi ànd ak ci suñu thème bi nga xamante ne moom lañu fas yéene ànd ak yéen ci àqu doom ba mu yoreel wuy juróom bokk na ci mu jàngal ko lépp lu yonent bi jàngale mu nekk njàngale boo xamante ne bu ci màggaale day xam ni lii mooy la ko yonent bi digal mu di si wéy waaye lii mooy la ko yonent bi tere mu di ko moytu ba tax na tey ci kattanu suñu boroom ñu fas yéene wéyande ki yéen keroog bunt bañ doon waxtaan ak yéen ci la yàlla wax ne yonent bi nel say soxna ak say doom yu jigéen ak mboolem jigéenu way gëm yàlla ñi nañu wàccee seen muuraay seen jilbaab ba ñuy teg seeni jé te muy wàcc seeni mbàgg yàlla ne yonent bi ne loolu ma la ne nang leen ko wax loolu mooy la jekk ci ñoom mooy la leen di aar mooy la leen di suturaal te mooy la leen tax xàmmee la leen di tax a xàmmee ne ñi ay jigéenu julit lañu ba tax na duñ leen lor waaye nag yàlla buur la bu làmbok jéggal joo xamante ne moom dong moo nekk di ko defal jaamam waaye moo yore yërmande bi nga xamante ne euh, da koy dottil ci kaw jaamam ba tax na bokk na ci mbokk auditeurs yi ña sàkku woon ngir ñu delloo aaya bi ñu gën ko war a mën a yaatal ci anam bi nga xamante ne noonu la war a mën a nekkee waaye ñu di leen fàttali ne rek waxtu bañ ñu li moo xaw a tuuti par rapport ak nañu bëgg a yaatalee aaya bi xanaa ñu cof si tuuti rek ñu def ko marra sixaaf daal di cof tuuti romb comme na niiru asamaan di doxee ci kaw asamaan si wala ci kaw jaww ji doxalin boobu lañ bëgg doxalee linimel nga xamante ne du doon dox bu gaaw waaye du doon dox bu yiix waaye niiru asamaan ku xool ci kaw jaww ji na niiru asamaan bi di doxe képp kuy doxee noonu sa doxin du gaaw lool bañ naan kañ la fi jaar gaaw na di waaye du du lool bañ naan yéex na de mais na gaaw jàll boog loolu mooy madras sixaaf mooy doxalinu jaar jàll ni niiru asamaan bi di doxe ba tax na ñu ne aaya bi yàlla daf ne yonentu bi ne yaa ayyuhan nabiy qul li azwaajik wa banaatik wa nisaa'il mu'miniin yudniina alayhinna min jalaabiibihinna daalika adnaa an yu'rafna falaa yu'zayna wa kaana allahu gafuuran rahiima yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla dakaa jox benn message ngir mu partager ko ak mboolem soxnam yamu denc waaye message bi na wàcc ba mu àgg ci jigéenu jullit ñi ak doomam yu jigéen ñi mooy ay yaa ayyuhan nabiyyu qul li azwaajika wa banaatika wa nisaa'il mu'miniin yarxiina ala ru'uusihinna wa wujuuhihinna min adnaatihinna wa na li sitri wujuhihinna bindkat bi neena na loolu mooy yàlla dane yenentu bi salaa salaam waxal say njaboot ak sa waa ak sa doom yu jigéen ñi ak mboolem jigéen ñi jullit ñi woy gëm yàlla ñi nañu wàccee seeni bët ñu bañ a xool lu ne waaye nañu wàccee lay teg seen jë muy muur seen mbagg yi waaye bu ñu mënee teg leneen seeni jë bi wàccee ko seen xarkanam bi muy li gën te ñu dox ndànk di wax ndànk ñu bañ a yëkkati seen baat ndax ñu ne baatu jigéen awral waaye mu doon benn sitr la bi nga xamante ne muy muur benn muuraay boo xamante ne muy muur seen xarkanam yi ak seen dënn yi waaw ak seen bopp yi buñ ne juyu bi na mooy lay muur bopp bi karaw bi du feeñ buñ ne karaw bi du feeñ mbagg bi ci la ñu muur mbagg bi ngir mu bañ a feeñ seen ba nga sol mu bañ a feeñ xar kanam bi du mu bindoo moom mu bañ a feeñ gannaaw bi nga tegee lenn ci sa jë wàccee ko mu muur sa lex beeg sa sikkim bi lépp daka war muur bu ko muri lu dut lu jar nga di ko muri waaw yàlla nee zalika aqrabu loolu moo gën a jege waaw ngir ñu xaamee leen an yamizanna bi sitrin waaw loolu moo gën te loolu moo gën a jege ngir ñu xàmmee leen ci la tax ngeen sutural seen jëmm yooyu waaw loolu mooy la yàlla digle yàlla nee su ko defee nag waaw falaa yuradu lahunna bi makaarihi ñu bañ leen gaaral lépp lu ñaaw ñu bañ leen taxé ci lépp lu ñaaw gis nga digle ba yàlla digle fi képp ko doxee bépp soxna bu ko doxee di nga mucc di nga am sécurité aw aza wa kaana allahu gafura rahima nga xamante ne duñ leen gaaral lépp lu ñaaw waaw ndax doo gis ku muur yaramam nga ñëw en tant que góor nga di ko jox loxo da nga naan kii day sellal da nga naan kii soxna suy sellal la xaaral ma bañ koo jox loxo waaw kon kooku boo koy nuyu danga ko naan asalaamaaleykum su ko defee bañ lañ laa bañ lañ laa gaaral lu ñaaw ndax joxe loxo diggante góor ak jigéen loolu lu ñaaw la waaw loolu kenn waru koo def waaw ñu réew bi nag am na loo xamante ne boo ko fii waxee waaw am na ñeneen ñoo xamante ne bu leen neexee ñu déggee ko ci seen bëgg-bëgg waaw bu leen neexee tamit ñu bañ koo dégg seen bëgg-bëgg waaye ñun nag ah la yàlla wax ci téere bi rek la ñuy jottali ku am li ngay contexte nag nanga bind buur bi yàlla ne ko ah man li nga wax nii de ma dégg ko ustaas bi di ko waxtaanee loolu man nii laa ko gisee su ko defee ñun moom nang leen ñu si kaccat si mbir woowu léegi mu des seen diggante seen borom waaw ndegem yàlla moo ne na ngeen melee nii na ngeen def nii bu leen mel nii bu leen def nii képp ku am li ngay contexte moom buur yàlla ngay bind buur yàlla ne loolu mooy li sell su ko defee duñ leen gaaral ay ñaawteef walla ñu di leen lor ci xeetu loraange comme niñ leen joxe woon keroog misaal ba toll ni ñaari xale yu jigéen kii sol lu kenn dut mun a xool waaye kii moom dafa muur yaramam keroog bañ daan romb ci mbedd woo xamante ne ay saay-saaya fa taxaw soxna su sol jigéen ba sol la kenn dut mun a nettali la kenn dut mun a wax kooku de daa am tiitaange bu nga xamante ne kamuur yaramam ci gàttal daal moo ko sowe ndax kooku la àndal ba tax na kooku la saay-saay yi may bët kooku la ñu jox cër kooku la ñu respecté ba tax na mënuñoo dal ci kaw beneen soxna su li ki sol lu kenn dut mun a waxtaane waaw loolu mooy yàlla nee na ngeen muur seeni cër loolu mooy la leen di aar waaye keneen ku muuruwul cëram yàlla du du du maanaam du la du la assurer sa sécurité waaw la du la du la assurer sécurité waaw ki yàlla ne na nga muuru kooku muuru na ki yàlla ne nanga mel nii mel na noonu kooku yàlla sañ naa assurer sécurité bi sécurité tàmma bi xefsel tàmma kooku yàlla war na kaa mën a sécurité sécurité bu mat sëkk maa ngay dégg ñu ne soxna su muuru lañu ñu agressé jël saagam wax ma amul de waaye ma waaw ndax agresseurs yi euh, ñoom yàlla da leen di da leen di nëbb euh, waaw soxna yu ni mel yàlla da da leen di da leen di nëbb képp koo xamante ne muur na ciram waaw mu war xëy fajar agresseurs yi dañ koy dañ koy dañ koy dummuyu waaw mun nañ koo dummuyu ñu bañ kaa gis comme mun nañ kaa dummuyu ñu ne kii day sellal nañu am xolu yërmande comme mën nañ kaa dummuyu ci kiirlaay ba yàlla di doxal diggante saay-saay yooyu ak soxna si muur yaramam ndax muuraayu yaramu jigéen yàlla daka garanti moo tax mu ne zaalika loolu ma leen dig noonu àddina mooy li jekk àddina mooy li leen gën a jege adnaa mooy li nga xamante ni mooy li gën a wóor an yu raf na ñu xàmmee leen ne yéen du ngeen jigéen yuy taxawaalu jigéen bay taxawaalu am na lu muy comporté woo jigéen ju du taxawaalu nag kooku di melokaanu melokaan ba alquran jàngale kooku tamit dafa am lu muy comporté woo yàlla ne àddina loolu mooy la tax ñu di leen muytu an yu raf na ñu xàmmee leen waaw xàmmee boobu bokk na ci fala yu zeyna duñ leen lor duñ leen bunduxatal duñ leen teg fitna kon képp koo xamante ne ab soxna nga bëgguloo ñu teg la fitna bëgguloo ñu teg la gàcc nanga muur sa yaram na nga suturaal sa yaram nanga muur sa yaram comme naka alquran jàngale su ko defee nga mucc ci loraange bi nga xamante ne moom la la say-say bi waajalal su ko defee noonu la ñuy déggee maanaa aaya bi yal nañu ko yàlla déggloo amin ya rabbal alamin mbokk yi ñu ngi leen di fàttali ne ba léegi e, ñu ngi ci vacances te xam ngeen ne xale bi war naa war a mën a dem daaray vacances ngir mu mën a jàng la nga xamante ne mooy alquran donte fukki saar yu mujj yañ leen doon dégtal ci alquran moom lay jàng su ko defee mu góor-góorlu force ci tuuti mu am ci loo xamante ne dina ko war a mën a gannaayoo mu tàmbalee ko ci alam kayfa di suratul fiil ñëw nañu ki yéen ba keroog démb ñu taxaw ci suratul nasr di ida jaa nasrullah tey dinañu indi élève boobu mu jàngal ñu beneen saar bi nga xamante ne moo nekk ci saar bu topp ci suratul nasr muy suratul masad fu buur yàlla tabaraka wa taala di waxe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne a'uudu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maaluhu wa ma kasab sayasla naaran zaata lahab wa mraatuhu hammalatal hatab fi jiidiha hablum min masad élève bi jàngal nañu suratul masad fa buur yàlla tabaraka wa taala rubbe abi lahab ak lépp lu nekk ci moomeelu abi lahab ak soxnaam di ummu jamil keroog bés pénc buur yàlla na yonent bi ne ñooy fami boo xamante ne du ma deñ di wàccee ci ñoom sama mbugal ñu doon lañu méditer muy famille abi lahab moo tax élève jàngal ñu bismillahi rrahmani rrahim tabbat yada abi lahabin wa agna anhu maaluhu wa ma kasab sayasla naaran zaata lahab wa mraatuhu hammalatal hatab fi jiidihaa hablum min masad mbokk yi suñu élève bi jàngal nañu suratul masad fa buri yàlla tabaraka wa di robbe di solare yërmandem jëmm bi ñu naan abi moo ne lu tax yàlla rëbb abi lahab lu tax yàlla soril abi lahab ci yërmande ñu ne bokk na ci keroog ba yonent bi sallallahu alayhi wa woote bu mag boo xamante ne dane notaabul Quraysh kilifay Quraysh ne tey dama woote ma bëgg ngeen ñëw wuyu si ma ci la leen di woo mbokk yi ñu ne keroog ba ko notable Quraysh wuyu ci lam leen doon woo ñu ne keroog ba ñépp ñëwee dikk toog yonent tibi sallallahu alayhi wa mu nara waxtaan ak waa Quraysh nara waxtaan ak ñoom waxtaan su am solo waaye keroog kenn ci notable Quraysh yi di Abi Lahab dafa am kàddu bu mu yëkkati ci ndaje boobu jëmale ko ci sang bi sallallahu alayhi wa sallam moo keroog ba yonent bi woote ne leen woote bi de lenn la ba xam bu ma leen waxee ne montagne ba nekk ci ginnaaw fii am na dëkk ba jógee ko seeni dëkkuwaay ñu takk geer nara song màkka ba xam di ma gëm ña toogoon ci bërëb bi ñëpp babbeeku ñu ne ko waaw waaw yow de musuñoo xam ci yow dara lu du dégg ba tax nañu tuddee la al amin ku déggu ki ku wóoru ki ki ñi am kóolute bu mat sëg confiance totale lañu am ci yow musuñoo wax dara lay deñ lépp li nga musa wax dëgg la mu ne leen nag bés ni ki tey na ngeen xam ne yàlla ma yónni ci yéen ngir ngeen bàyyi jaamu xëram ya ngeen nekkee ngeen wétal yàlla ci na mu nekkee kenn dong ngeen bañ koo bokkaaleek dara ngeen bañ koo dendaleek lenn loolu mooy message ba ma leen bëgg a wax ñu ne ci ndaje boobu mbokk yi bàyyi tëxam di kenn ci doomu bàyyi yonent bi kenn ci rakku papaam wala kenn ci magu papaam di abi lahab mu jaal di jóg am kàddu bu ñagas ba mu génnee ci gémmiñam jëmmali ko ci sang bi sallallahu alayhi wa ne ko tabban lakk ali haada jamaatana yow toskare ñeel na la moo ne lii a tax nga dajale ñu fi yàlla ne jibril ne demal ne sang bi ne toskare ba mu la yéene moom mooy toskare jëmmam ak lépp lu mu yore ak lépp lu mu am ci koom-koom ak lépp lu muy fàggu lépp laa def mu doon lu toskare ànd moom mu doon ku toskare ku alku du yem foofu de dinaa ko tabbil safara su jahannama muk famim képp ku nekk ci fami zaata lahab waaye du yem ci famim de soxnaam di jabaram wa maraatuhu ka nga xamante ne bokk na ci moo doon campagne di mëne campagne boo xamante ne pour daaneel gouvernement yenentu bi wala nasaxal diine ba yenentu bi di woote yàlla ne jigéen jooju day bokk ci mbugal ba jëkkëram di dund yàlla ne duma deñ di leen yokk di leen dottil mbugal joo xamante ne bu dee teen la dinaa leen yoor bu mu mbugal boo xamante ne du musa dagg ba ilal abad kon suñu élèves yi saar bu mu ñu jàngal tey mooy saar bi nga xamante ne moo topp ci suratul nasr di iza jaa nasrullah mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot ñaan yàlla suñu boroom yal nañu yàlla xiir ci boppam yal nañu yàlla xiir ci jëf ju baax rawatina topp njàngale yenentu bi sallallahu alayhi wa mbokk yi na ngi fàttaleku bi léegi bokk na ci ñi nga xamante ne dañ ne bés ni ki weer wi la yonent bi ganesee àddina waaye ñu laal as lëf ca la nga xamante ne mooy loolu mu ganesee àddina ñu laal ci la nga xamante ne mooy la ko buur yàlla taggee mu sellal ko ñoŋal ko jekkal ko nam ko defee yonent bi sallallahu alayhi wa amul keneen ki ko yàlla defal subhaanahu wa taala ba tax na mbokk yi buur yàlla tabaraka wa taala bindkat bi nee na laqad zakka allahu taala nabiyina tazkiyatan te dëgg dëgg dëgg dëgg suñu borom tabaraka wa moo sellal yenentu bi tagg ko sellal ko nekkinam sellal ko jëmmam sellal ko anam woo xamante ne amul kenn ko buuru yàlla sellale anam bi ni wala mu jekkal sa nekkin anam bu ni moo tax mu ne ma zakkaaha li ahadin min xalq amul kenn ku yàlla taggee teggin bu mu teggee yenentu bi sallallahu alayhi wa sallam ci mbindaafoon yaa yàlla bind waaye amul benn mbindaafoon ba méditer anam bi ci la yàlla bind bindkat bi nee na zakkaahu fi aqlihi fa qaal maa dalla saahibukum wa gawa buru yàlla tagg na yonent ci xelam buur yàlla tagg na yonent bi ci xolam ci anam bi nga xamante ne buur yàlla da ko ne maa dalla saahibukum wa ma gawa déet seen mbokk bi mu doon ko sànku déet mu doon ko bew yonent bi sànkuwul de te bewul waaw xel bi lépp la ngeen defe ne looloo fa nekk ba tax ngeen di ko jin cànkute yonent bi sori na loolu de bu dee cànkute de kuñ ko war a mën a jiiñ te mu nekkee ko te mu midite ko yéen ñii la yéen yéefaru makka yi nga xamante ne yéenay jiñ yonent bi cànkute bu fekkente ne da ngeen ne yonent bi du ndaanaan ah yéen a doonut ndaanaan kontreelu ndaanaan mooy ngaaka yéen doon ngaaka waaw yéen doon ngaaka woo xamante ne xamuleen lu géej gi di riir waa yonentu bi daal ndaanaan la te nandite la yonentu bi nandite la te ndaanaan la waaw kañ bi du ngaaka de yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam ngeen yaay dafa sànku cànkute la toll ni misqaala zarra dalutu yonentu bi bi dafa jub nekk ci yoon bu jub xoj kon yena nekk ci yéenu ci yoonu ndëngte ak ci yoonu cànkute waaye yonent bi dara jotu ko te fu mu teg tànkam foofu la moo tax yàlla laabal ko ci xolam ak ci xelam ne leen kii du jëfandikoo lay taqale koo nit ak sagoom kii melowul melokaan la nit ki di jëfandikoo ndax yéefaru màkk yi waxtu woowu dañ doon jëfandikoo la leen di màndiloo te yonent bi sori na seen loolee ba tax na yàlla ne ko ma dalla saahibukum déet seen mbokk bi mu doon ku sanku woma ma gawa mu doon ku beew bewul sankuwul waaw la mu def xam na ko la muy wax xam na ko la mu nekkee xam na ko mbokk yi lii lenn la ci lañ leen bëgg a ñamal ci la yàlla tànn yonent bi mu segg lépp luy ayib ci melokaanam ak ci jëmmam incha allahu rabbi ndem soob na yàlla bu ñu dellusiwaatee suba du ñàkk ñu ànd ak ci leneen la ko yàlla sellale te mu doon cellaange boo xamante ne amul kenn ku yàlla sellale cellaange bu ni mel ku dut bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa an yajcalana min allazina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna axsana nasaluka allahumma an tajcalana min allazina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna axsana allahumma ya rabbi aati nufuusana taqwaha wa zakkiha wa anta xayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha fa nicma almawla wa nicma annasir mbokk yi waxtaan bi jeexut